centre des handicapés bu Mbour am na rek nag léegi ab sald de spectacle ginnaaw ba nga xamante nii ñoom nag am nañu ay troupe yu mel ni ñuy def théâtre ak fecc ñooñ nag ñi leen ci jàppale ba loolu am mooy ONG bi ñuy wax ay AF Veren financé ko lu toll ci fukki millions ak juróom salle boobu rek nag dina tax ñu mën di def seeni répétition ak rek ay spectacle directeur centre ba nag moom rafet na bu baax a baax loolu euh, remercier ñi nga xam ne ñooy partenaires yi euh, ba ñuy inauguré li nga xamante ni mooy salle ñu ñëwoon fi tey nag pour inaugurer suñu centre suñu salle de spectacle boo xam ne nii ONG Sénégal Inspiring moo ko tabax ak ab partenaire am ñu kontaan trop ci inauguration bi parce que salle bi dana ñu permettre ñu mën a doxal suñu suñu activité bu baax a baax parce que surtout ñu mu gën a intéressé mooy ñiy def théâtre ne théâtre bokk na ci activité bi nga xam ne ni moom moo moo jëkk ci centre bi kontaan nañ trop aussi ci salle bi di laaj rek salle bi liñ ci bëgg rek mooy nit ñëpp bu buñ koy defar du noonu rek ñoo tax ñuy defar dañ ko tuddee handicapé waaye population bi yëpp ñoo ko mën a jariñoo saal bi nag ni ñu ko tabaxee mat na ñeneen fukki millions ak. ONG Al-Fouveyrine yamul fofu ndaxte daal am secteur yu bari yo xam fi ci diwanu Mbour dugal nañ fa ay copar ngir jappalé askan wi euh, centre bi nak manam nee nañu tax ba manam ñi nga xam ñoy handicapé yi di mën di am rek nak ay copar yo xam dañ ci mëna financer euh, seen activité activités yi docteur action sociale nak mom mo représenté won préfet bu département bu Mbour mom rafet na lii nga xamante ni ONG Al-Fouveyrine def nañ ko. ñuy gëre il faut ñu gëreum sant muy ONG Sénégal il faut Vérène parce que Sénégal il faut Vérène euh, li nga xamante ni mooy tax nit ki war a moom boppam war a wala wala mën a demal boppam ba mu sentir ni moom ci réew mi la bokk secteur yëpp euh, Sénégal il faut Vérène daf ci dugal loxoom. tey nag li desoon moo doon euh, wàllu wàllu culture maanaam lu jëm ci aadaak yeneen ak animation yi demee noonu ah loolu nag su ko complété ci chaîne bi. ñun mënuñu en tant que état mënuñu wax lu dul vraiment euh, gàcc ngaalam responsable ONG bi nag bañ jëlee kàddu ñoom daal rafet nañu daal partenariat bi nga xam ne am na ci diggante euh, centre des handicapés ak ONG AFVRN ba tax na ñoom nee nañu rek nag daañu dugal seeni i koppar ci yeneen i secteur ngir rek nag askan wi nekk ci jàmm